làmb du la bett ndax làmb fee partie du sport comme yaa ko waxal sa bopp da koy gis ci football di ko wax ci leen mais tous ces sports donc tey jii ñu am euh, vraiment plaisir ñëw tey ci bisu Ouzin production bi grace à ñasa sàmb bi nga xam ni kenn la ci Abdou Salam Mbaye di ànd ak moom moo waral ñu ànd ak délégation bu taaru bi macha allah ñëw représenté ko fii tey. lan lañ mën a xaar ci Abdou Salam Mbaye ak Djidé Thiaroye Kaw. Euh, li ñu mën a xaar ci Abdou Salam Mbaye ak Djidé Thiaroye Kaw bari na. man dama sax Abdou Salam mbay du dañ koy xaar Abdou Salam Mbaye ak Guida Thiaré kaw mais dañuy xaar Abdou Salam mbay ak Sénégal parce que Abdou Salam Mbaye wax naa la ko léegi si Abdou Salam Mbaye national Abdou Salam Mbaye dayoom euh, bëgg nañ mu génn Guida caaree kaw vers tous les toutes les régions parce que nit la koo xamante ni vraiment liggéeyam. Euh, ci aw askanam ku ko ku ko déggut gis nga ko ku ko gisul aussi dégg nga ko donc ku mel noonu man damay jàpp ne Djiddah Thiaroye Kao la juddoo fi la yaroo mais nekkul ne waa Djiddah Thiaroye rek ñoo ko bokk mais département bi ñoo ko bokk mais Sénégal ñoo ko bokk ñu ngi koy ñaanal taxawaayam yàlla kattanal ko ba lii li mu am yéene rek ci askan bi yàlla def ko ci barke yonent bi salaay salaam. en tant que sën lu la bëree Abdou Salam. Abdou Salam par conviction moom boole moom maa moom mu nekk jeune. ban objectif ngeen bokk. ñoo ne mooy une vision de judo caaree kaw maanaam dafa am lu soxla pour judo caaree kaw judo beneen xar kanam dafa sox dafa soxla xar kanam bu bees maanaam politique autrement comme lan maanaam amul naxaate amul lëndëmal amul dara lépp si transparence lay nekk lu leer naañu lu jub xocc si loolu la ñuy dox si loolu la ñuy nekk ak moom si loolu la ñuy jàngal looloo tax ñu topp ko mais du leneen amuñu intérêt si moom waaw ah joma junni Babacar naa jox léegi juni demal ñëw ma jox la junni. moom moo ma dig junni taa jox ma. dinaa la jox léegi junni. déedéet jox ma junni ma sa numéro ma. déedéet jox ma junni. jox ma sa ma wéb la ma junni. jox ma junni. ma sa ma wéb la a jox ma sa. yaa a may junni. yaa a a dinaa la jox yaa ngi tàkk ba caméra yaa ma junni. mais dinaa la jox man ragaluma loolu. joxoo ma ragaluma loolu. ma dama lay jox. joxoo ma mais demal ñëw ma. dinaa la jox moo ma junni joxuma ko. jox ma dinaa la jox junni Babacar man ragaluma loolu. dama junni léegi jox ma sa numéro ma féeb la. jox ma sa numéro.